amoon benn vidéo bu gàtt rek bu may def vidéo bi tamit dafa jëm ci euh, suma xarit muy Serigne Mbaye MC Niass euh, lu ci jëm ci loolu tamit mooy mbirum audio yi nga xamante ne euh, yéen a ngi koy dégg fan yëpp mu nekk ci internet bi Euh, audio yi bi mu nekkee ci internet bi euh, ma gis tamit ay nit yu génn wax ci may fàttali na rek euh, jataay bii ma toog nag tontu kenn taxul ma toog fi maanaam tontu lu ma Serigne Mbaye wala may tontu Bougane wala ma tontu Ahmed Khalifa ñas wala ma tontu Koura Macky wala ma tontu sax Fatoumata njaay Fouta Tampi parce que ñoom ñëpp gis naa ko nekk def ko sorti wax ci mbir mi loolu moom jàpp naa ne sëriñ bi su ci wax ci jotee moom dina ci waxal boppam waaye li tax ma génn rek mooy ñi jot a wax ni ñu waxee te ànd ak sëriñ bi lépp xam ci taxawaay yi mu ci taxaw mu leer ma leeral yàlla ku ma joxoon kaamin ma waat ci ne euh, fi ñu jëmee wax ji du fa. ma bëgg ñi jot a wax bu dee dafa am lu leen leerul ci liñ dégg ma leeral laat leen ko ñi jotut a wax ma leeral leen ne kuy wax maanaam lii jot a jàll te ma dégg ko ci ay nit ñu di ko wax loolu du mooy buntu wax ci ndax na mu demee waxee wuñu ko nii parce que lu ëpp ci ñi wax rek dañ ne sëriñ mbay dafa yàq suñu der maanaam di yàq der di def nangam wala di santaas ñaar yëpp dugg na ci mooy yàq der baatub santaas jàpp naa ne nag ku yàq der moom du dem jël ab audio maanaam enregistrement appel yor ko lu tolloog at parce que <coughs> décembre la sëriñ bi enregistré Adji Sarr ba décembre ba dellu siwaat mu doo koo jox doyen de six atum yàlla nag ku ko mën a yor lu yàq ay der te ba nga koy def amoon ci yéene yàq der nga téye ko at dugaloo ko loo benn sénégalais musut ne dëgg naa ko wala sëñ bay jox na ma ko wala def na ma ci dara kon kooku jàpp naa ne ku yàq der bokkoo ak kooku aw doxalin bu dee baatub dafay santaas su santaasoon su ñëwee ma jox ko nangam jàpp naa ne tamit bu dee baatub santaas Serigne mbay bi mu yoree ko yi amul benn responsable mu jege Macky sàll ak bu ko sori bu mën a taxaw wax ne Serigne Mbaye laaj na ma nangam wala wan na ma ko wala sàkk nañu daje wala dara euh, lim wax. te ñëpp dégg ko mooy aji saar wax naa ak man wax na ma ne lii mu nekke ay tappale la loolu nag bi ko ko aji waxee lenn rek la sëriñ bi doon sàkku mooy nañu na ma siis bi woo ma leeral na ma siis bi woo ma leeral loolu la yàgg wax man mii nga xam ne da doon waxtaan ak man dama ko doon dama ko doon féete ci xelal ko ci mbir bi pour dëgg feeñ ci lenn laa mas a wax mooy na ko siis bi woo na ko siis bi woo jàpp naa ne nag ku yor ay ojo li santas Macky Sall doo dem ci justice di ko ko jox parce que justice moom xanaa koy santas di nga ko teggi su fekkee nag ku mooy siis bi nag keneen génn wala lenn luy firndeel na Serigne Mbaye da doon santas wala da doon laaj kon loolu leeral na ne ñi wax ne daf doon yàq der ku yàq der doo dem di jël dara di ko jox justice denc ko at génnewoo woo ku yàq der wala ku bëgg santas doo dem ba ci doyen de siis ma xam jàll nga di ko jox ay ojo te it mbirum santas moomu tamit Serigne Mbaye bu fekkoon ne dafa bëgg a santas waa APR wala kilifa yi réew mi jàpp naa ne tey la koy tàmbali tey bi nga xamee ne am na audio yu jot a génn ba mu leer le leen ne wax joxoon na diggante Serigne mbay ak Adji waaye sëriñ Mbaye de audio yii ak jaar-jaaram ak Adji Sarr. Adji Sarr bi mu duggee ci ay loxoom ba waxtaan dox digganteem ak Adji ba ni mu doxalee ba àgg ci juge bi lépp boo ko xoolee da xam ne Serigne Mbaye mii day nit ku responsable la ku ñeme dëgg la te ku bëgg dëgg la parce que Adji Sarr dafa jaar ci Baye mbay bi mu fa ñëwee lim séq ak Baye Mbaye lu bari la loo xam ne asaka ji sénégalais yi xamaguñu ko Adji xam na Baye mbay xam na mais asaka ji même ñu wër Adji Sarr xamuñu ko bi Baye Mbaye demee ba gis ne lii kat bunte gi ci bu mën a feeñalee dëgg indi jàmm ci réew mi dafa enregistré Adji Sarr bi mu ko enregistré dafa wëlbatiku xamal Adji Sarr ne ko kat lii nga ma leeral de enregistré naa ko aji ñaan ko ndimbal mu ne ko damay da ngay ñëw nga wax sénégalais yi dëkk ma yóbbu la ci Ousmane ko nga baalu ko ak nga baalu ak ñëpp delluwaat ci sa fii coow lu jeex aji lànk ne loolu du ko def bàyyi mbay booba ak léegi na justice wooma ma leeral ko la ma sa wax jàpp naa ne te ba mu demee ci justice ba génn benn déclaration la def mooy wax ne la ma yoroon jox naa ko siis bi yàlla na yàlla feeñal dëgg demaat këram toog booba ak léegi déggu ko mu wax ci dara kon képp ku koy sonk yaa ngi tooñ jàpp naa ne nag li ma wax léegi mooy Baye Mbaye bu doon santaas tey la koy tàmbali mooy li dox diggante baay Mbaye ak aji laa bëgg leeral tuuti rek li ma ci mën a leeral mooy aji saar moom Baye Mbaye bi mu koy xam ci enregistré nit ñi la ko fekk loolu moom mooy li moom enregistré nit ñi moom ci la ko Baye yàlla dafa dogal it bi mu demee ba Baye Mbaye dugg ci dossier bi comme Baye Mbaye moo di sëriñam di sëriñu kilifaam di kilifaam dafa jàppoon ne fii moom dencukaay la boo xam ne lépp lu ko naqari fi la ko war a sotti ak lépp lu muy nëbb fii may wax ak yow Baye Mbaye yor na xaw xawumaa xam ñaata audio la wala ñaata kilifa maanaam jàpp naa ne képp ku mos a téléphoné Adji Sarr ci bi coow li tàmbalee ak tey jii wala boobu bi mu yoree iPhone 12 am boobu ak tey jii bépp nit bu ko mas a moo xam journaliste nga moo xam kilifa nga moo xam député nga moo xam ministre nga moo xam ab géwal nga moo comme mën a doon ci li ma jàpp mooy aji saar moom enregistré la wala ñu ci rëcc bëriwul enregistrement yooyu yépp daf ko dajale jox ko Baye Mbaye MC pour mu téyel ko am na sax ay nit ñoo xam ne dañoo toog ak aji fexe ne ba foto leen jël photo yi transféré Baye Mbaye am na sax ñoo xam ne ay vidéo yi trente minutes nga xam ne kii diwatoo nii mu koy firma di dugal loolu nag moom moo xam ni mu ci jub parce que ci biir audio yii nga xam ne sax jox nañ ko juge bi aji mi ngi wax ne même journal yi bind ci man sax journal bu mës a bind ci man wut naa ko denc ko ci li ma yaakaar nag loolu nag nekkul ci biir waxtaan yi waaye ci li ma yaakaar mooy aji moom bu demee ba Amérique parce que yàgg naa wax ne su ma génnee su ma waxee li ma xam. ñoom ñëpp ci kaso bi lañ jëm man damaa gëm ni dafa amoon yéene fexe ba génn fii mbooleem ñu mas a waxal ak document yi mu am yëpp mu xëpp ko ci internet bi pour réew mi jaxasoo man loolu laa jàpp. waaye li wër te wér daal mooy bu fekkonte ne sëñ mbay moom santaase ko tax a jóg mi ngi ak lu mu mën a santaase réew mi su fekkonte ne yàq der moo ko tax a jóg xam naa ne bari na ñu ay audio photo vidéo lu mu seq ak aji lu bari loo xamante ne su ko génnee woon tey jii réew mi dana bëri mag mu fi suturaam xawi ko dana bëri ñu fi bëree bëri bari ñoo xamante ne danañ am lu leen naqari lool soo xoolee aji kenn la mënta woon a enregistré muy Mamour Diallo parce que Mamour daawu ko woo téléphone te bi Mamour ñëwee ba toog ak moom fexe na ba enregistré ci ay technique yu boppam fexe ne ba enregistré Mamour jël jox jël jox jël jox juge bi jël jox bàyyi bay mu téel ko boo xoolee sax Gabriel kan mi Adji Sarr daan nekkal ak ku ñuy wax Fifi wàdd defe naa la ak keneen ku jigéen lu baree bari day doog ak ñoom bés enregistré mam enregistré leen bu paree sànni bay mbay def na ko ay miraaram am na ci boo xamante ne mi ngi naan Fifiane ki tudd Fifiane ñëw na ne ko ma defaral la nga omelette bi ndékki nañ ñi ngi ndékkile ma defaral la omelette mu ne ko non non xaaral ma pare su ma paree damay defar omelette maay defaral sama bopp omelette ñu toog noonu di defar omelette di lakk di waxtaan waxtaanu jigéen amul lu ci garaaw mais dama leen di xamal rek ne loolu rek moom daf daawu ko bàyyi mu jàll daf ko daan enregistré kon nag donc bu kenn tuddee bàyyi mbay yàqkatu der ndax jàpp naa ne kuy yàqub der boo amee lii lenn ngay profité mooy tey ma rey nit ñi yàq seenu wala boo amee lii di nga ne kilifa sàngam de aji wax naa aji téléphone bis nangam heure nangam nangam lañ doon wax mi ngi nii kilifa googu bu ci jotoon nga sandage ko mu jox la xaalis mais ñooñu ma leen wax amu ci kenn ku mën a taxaw ne bàyyi mbay mas na maa dégg ci àdduna wala mas na maa gis wala mas naa yónnee ndaw ci man kon il faut ñu arrêter naan Baye mbay yàqkatu der la kuy yàq der du yor audio pendant un an génne woo il faut ñu arrêter Baye Mbaye dafay santage kuy santage numéro seeni numéro ngi noonu mosoo gis kenn kuñ ci woo téléphone wala kum ci seet si wala kum ci masa sàkku pour gis la kenn kim doon sàkku kenn pour gis ko kooku kenn du ko santage mooy le doyen de six foofu dëgg lañ fay wuti Baye mbay ba mu demee dëgg la fa joxe toog di déglu man nag gis naa ne mbooleem ñi ci wax ñëpp. nanguwuñoo agsi ci ki leen tooñ muy Adji Sarr ñiñ enregistré moo leen enregistré ñiñ tudd moo leen tudd kuy wax nag man su ma sañoon ngeen wax ak Adji Sarr wala boo boo waxee Baye Mbaye sax nga wax ak Adji Sarr bokk mais ñëpp nag ci aw Adji ci kaw Baye Mbaye lañ bëgg a jël sippi ko mbir mi mel ne baay Mbaye moom moo leen tudd Baye Mbaye tudd kenn wala boo bu fekkee Baye Mbaye li mu def garaaw na tamit aji mi leen cité moom tudd leen moom itam def na dara kon jàpp naa ne kuy pelante nga pelante aji bu fekkee daf laa tooñ kuy tontu nga tontu aji bu fekkee daf laa tooñ wala boo mënta ñàkk a wax ci Baye Mbaye nga wax ci moom li mu def te bañ koo sosal naan ko dangaa dangaa dangaa dangaa danga danga dangaa jaxase nit ñi wala dangaa yàq der wala da nga doon santas nga waxal ko li mu def mooy moo enregistré aji Sarr loolu yoon maye na ko boo demee ca euh, code procédure pénale art euh, article 49 dafa may Baye Mbaye MC droit mu def lii mu def te ku ko weddi nga dem yër téere boobu da ko fa fekk yoonu senegal moo ubbil Baye Mbaye su amee lu mën a leeral enquête bii xam Diallo nekke mu jël ci ay ay preuve dem yët ko ko loolu yoon moo ko ko may kon jàpp naa ne bu amee kenn ko ko mën a condamné yoonu Sénégal la ku ci mer na nga wax ak Adji Sarr mi nga xam ne moo la cité tudd la te ngir yàlla ak yonent bi Serigne mbay lim ci def amul fenn fu ko nit mën a wax ne fii nga ma tooñe amul fenn fu ko yoon mën a wax ne fii nga ma tooñe lii ma def na defuma ko ci turu Baye Baye parce que man une semaine a ngi nii sax déggante wuñ gisante wuñ parce que yaakaar naa ma nga seen dàmm yooyu ca.